Sonko, adresser mes sincères condoléances au nom du président Ousmane Sonko au peuple sénégalais qui est endeuillé dans son entièreté, parce que c'est un peuple uni et indivisible, en raison de cet épisode tragique par des tueries en masse, mais par des crimes en cascade. Par la suite, je voulais aussi m'associer au message de Cheikh Tidiane Dieye au message de compassion euh, pour manifester notre désarroi à la suite des dégâts matériels des dégâts qui sont énormes à raison d'un gouvernement irresponsable qui décide de maintenir ce pays en tension mais en raison aussi des nombreuses blessures suite à des cas de torture manifestes au sein des commissariats de police et des brigades de la gendarmerie, confortée, aidée et renforcée et assistée par des milices et des nervis euh, ginnaaw loolu nag bëggoon naa accès sama intervention ci ñaari wàll premier wàll bi mooy li jëm ci justice muy dossier bi nga xam ne lu ëpp ñaari at parce que mars 2021 la tàmbale woon tey ñu ngi ci juin 2023 moo tenir en haleine de débat public mais moo tere Sénégal ñëpp kenn mënu am jàmm bu weesoo loolu nag dinaa revenir ci ay éléments de réponse <coughs> par rapport ak plainte bi nga xam ne sénégalais yi ñoo décidé ay autorités yoo xam ne dafa am nañu comporté woo ñu dénk leen doole ñu jël doole boobu diñu ci rey diñu ci torturer ñu ci mbugal ñu ci tëj ñu décidé saisir la Cour pénale internationale qui a une compétence universelle en ce qui concerne le dossier judiciaire nga xam ne moo frappé Sénégal depuis mars 2021 démb dañu gis koo xam ne moo censé woon garder les sceaux qui sont les symboles de la République le ministre de la justice tàmm nañu ci moom mu nekk dans avec une mauvaise foi boo xam ne elle est manifeste elle est expresse jéem a manipuler l'opinion nationale et internationale mais boobu amoon na limite parce que da doon jël loi bi di ko interpréter à sa guise et selon la commande du chef mais cette fois si dafa atteindre beneen niveau boo xamante ne yegg na ci paroxysme bi maanaam ci ñomboxtal bi mooy lan premièrement da ngay dugg ci loo xam ne nekkatul sa prérogative parce que ministre de la justice bi ñu la nommé dafa am décret boo xam ne mars 2023 la boo xam ni moo organisé ministère de la justice wax la yow lan mooy say attribution ministre de la justice nekkul mooy wax magistrat yi li ñu war a àtte ak li ñu warta àtte nekkul moom mooy commenter une décision de justice même su fekkee une décision définitive la parce que su boobaa dafay immixé wu en tant que kuy représenter la chancellerie bokk ci exécutif bi di dugg ci pouvoir judiciaire mais li pire mooy décision boo xam ne elle n'est pas encore définitive parce qu'il y des appels la partie civile a fait appel Ndeye Khady Ndiaye l'une des co-accusés a fait appel donc c'est décision pendante yow nga ne da ngay commenter décision bu di wax fan lañ ko teg donc loolu day influencer la juridiction d'appel li pire nag mooy nee na dafay dugg ci esprit wu juge bi maanaam moom mooy wax juge boo xam ne àtte na ba pare mais ba léegi décision bi disponible agul te décision nag ñetti wàll la qualité bi nga xam ne greffier bi moo koy def wax ñan ñoo àtte mbir mi composition tribunal bi nan la demee identité wu parti yi ak seeni avocat ak kañ nañ si saisir juge bi ak ak fan lañ jaar su paree juge bi daal di def motif maanaam fan la teg décision am après mu indi dispositif li génn keroog dispositif la c'est un prononcé ne lii lañu ñu àtte mais juge bi tant que génneegul décision bi cour d'appel mënagul statuer moo tax même kuy def appel bu demoon def ko ci cour d'appel greffier bu cour d'appel dafay demander greffier bu nekk ci tribunal de grande instance ne ko indil ma décision bi avocat yi suñuy plaider en appel procureur buy def réquisitoire en appel moom procureur général lépp ci décision bi nañ koy basé donc ki nga xam ne nag moom moo rendre décision waxagul fan la ko teg ministre bi génn ne moom mooy wax sénégalais yi décision bi fan lañu ko teg koy laaj nag loolu tekkiwul ne décision bi décision moom la et que bi dafa ñëw liir ko su fekkee loolu la na am courage wax ko sénégalais yi bi ci tegu mooy deuxième niveau bi nag mooy wax loolu wàllu waxut mais inventer ay décision de justice te dinaa ci revenir benn par benn dañu ko dégg mu ni ci ordonnance de renvoi bi nga xam ne moom la doyen des juges jël pour renvoyer mbir mi devant la chambre criminelle muy ordonnance boo xam ne elle est inédite dans les annales judiciaires mu ne ci ordonnance bi dañu renvoyer Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko pour in pour corruption de la jeunesse mu ne loolu ci li ñu ko renvoyer woon la bokk ne daal di ne dem leen ngeen liir waaw yéen ñii nag comme jàng ngeen am ngeen xel mën ngeen a lire gumba woo leen nañu ànd ñu liirandoo dispositif bu ordonnance bi vu l'article 175 du code de procédure pénale décernons ordonnance de prise de corps contre Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye ordonnons leur mise en accusation et leur renvoi devant le tribunal de grande instance de Dakar statuant en matière criminelle pour y être jugés conformément à la loi pour des chefs de viol et menaces de mort contre le premier incitation à la débauche diffusion d'images contraires au bonnes mœurs et complicité de viol contre la deuxième fait fait en notre cabinet à Dakar le 17 janvier 2023 fii da ngeen fay dégg corruption de la jeunesse kon nag de tailleur constitutionnel il est désormais passé à faussaire pénale de tailleur constitutionnel il est devenu falsificateur d'une décision de justice parce que ça c'est une décision de justice et c'est très grave ñu déggaat ko mu nii juge bi dafa disqualifié setalul Ousmane Sonko ci viol dafa disqualifié pour corruption de la jeunesse d'abord man dinaa revenir ci disqualification boobu parce que ñun jàpp nañ ne c'est une hérésie ni mu nekkee hérésie mooy disqualification mooy dañu am lu ñu lay toppee benn infraction bi la mais dafa am ay circonstances aggravantes yoo ko defee maanaam dañu lay toppee sàcc mais sàcc bi da nga koo ànd ak keneen muy vol en réunion wala sàcc bi da nga koo def ci guddi parce que circonstance aggravante la wala da nga ko def avec escalade da ngaa tëb mur wala da nga ko def avec effraction wala da nga utiliser moyen de locomotion da nga utiliser oto wala moto c'est des circonstances aggravantes bu ñu demee ba ci biir gis ne nekkete bi ngay sàcc tëboo mur wala bi ngay sàcc naam timis 19 heures moo jot mais timis jotagul guddeegul ñu daal di disqui disqualifié en vol simple loolu mooy disqualification mais toppee nit viol muy yàqtaan ne dafa forcer nit tourner fële ne la da nga def corruption la jeunesse da ngaa ger ay nit pour yàq leen ça n'a rien à voir kon c'est pas la même infraction mais moom nee na disqualification ni mu ko firee moom l'agrégé en droit mooy juge bi nee na séq nañu ñoom ñaar waaye nag séq boobu moom tuddeewu ko viol li mu ko tuddee mooy danga koo nax te fekk xale la woon loolu nag ñi wax sénégalais yi ne du dëgg c'est un pur mensonge parce que loolu la tudd bu ngeen demee tribunal ngeen def archive yi décision de justice yi ñu génnee yëpp yoo xam ne dafa am disqualification c'est la même motivation dañu naan attendu que les faits par exemple de vol en réunion initialement reproché à X s'analyse plutôt en vol simple s'analyse plutôt ça veut tout simplement dire que li ñu la doon toppee fireetul lii lële la firi bu ñu ko gisee lii la ñu wan te loolu juge bi nag mooy wane après en quoi corruption de la jeunesse am na li tax signifié wul conjonction sexuelle maanaam ñaan ñi dañoo séq parce que dañuy leeral pour sénégalais yi dégg mooy dañuy dem liiraat parce que tey dañu bëgg lépp leer article 324 bu code pénal alinéa 2 sera puni aux peines prévues au présent article quiconque aura attenté aux mœurs en excitant favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au en de dessous de lage de 21 ans ça veut dire que attente au mœurs mooy délit bi mais soo defee atteinte au mœurs da nga ko def soit da ngaa favoriser wala nga exciter wala nga faciliter débauche muy benn wala nga corrompre jeunesse bi donc le délit corruption de la jeunesse mënul nekk infraction autonome moo tax décision de justice bi jàppee leen ko benn torsion boo xam ne nit ñi ci poubelle lañ koy sànni parce que eh, du infraction moyen la pour nga def benn infraction élément constitutif la kon nag mën nga favoriser wala nga exciter ay jeunes pour ñu nekk ci débauche tey bu la neexee nga tabax sa kër dugal fa ay xale yu góor ak yu jigéen ñiy caaxaan tu as favorisé tu as excité tu as facilité la débauche ils ont moins de 21 ans mais est-ce que yow da ngaa siq ak ñoom relation bu dee góor nga ay jigéen ya fa nekk bu dee jigéen nga ay góor ya fa nekk kon bu taxawee ne bu ñu nee corruption de la jeunesse mooy conjonction sexuelle encore il a déformé la loi mais il a falsifié une décision de justice il ne il ne peut plus être digne de garder les sceaux qui sont les symboles de la République parce que le département de la justice c'est un département de souveraineté c'est extrêmement important beneen bi mooy mu ñëw di wax ci contumace encore une fois waxaat loo xam ne képp ku koo xam ne jàng nga xam li yoon di doxee wala ngay sénégalais boo xam ne am nga xel di xalaat danga war a rus ndax daf nii comme contumace la mun nañu dem jël ko à tout moment mais que président Ousmane Sonko bu ñu demee pour ñu jëli ko il faut ñu notifier décision de justice bi il faut ñu yëgal ko ko dinaa ñëw ci la moo tax mu bëgg yéexal boobu am mais balaa ma ciy ñëw damay wax ne loolu amut sa simple notification boobu. amut bu ngeen demee lire article 345 bu code pénal daf ne bu ñu la condamné pour contumace décision bi dañu koy affiché dañ koy affiché au dernier domicile du contumax mooy ki nga xam ne moom nañu woo ci procès criminel te ñëwut o dernier domicile foofu nañ koy affiché waaw koo xam ne contu contumax la dafa daw génn par exemple te loolu mooy contumace naa ci ñëw mais loolu yegg seeguma ci kooku nan ngay demee di xaar pour notifier ko notifier bi notification ak signification du benn signification ak sitation du benn loolu ay termes la yoo xam ne ñu nekk ci pratique pénale xam nañu ko même pratique civile léegi ñëw ni la dañ lay notifier lu ñu lay notifier te yow nekkoo fi nga daw tant que notifié wul le procureur di la jàpp du la jàpp kon de Sénégal war na ñëw tiit bu dee trafiquant de drogue bu ñuy war a àtte mu daw wala koo xam dafa rey nit bu dawee tant que notifié wuñ ko décision bi kenn du ko dem jàppi loolu c'est grave c'est indigne d'un ministre la justice kon nag loolu ñu ciy jaaree yéen sénégalais ngeen xam ne le droit pénal ce n'est pas de la littérature constitutionnelle non c'est pas de la littérature constitutionnelle la pratique de procédure pénale ce n'est pas la théorie à l'amphi à l'université non non c'est différent li ngay wax da nga koy dund jëfee ko mais nga teg ko ci bonne fois pour mun a wax loo xam ne sénégalais yi bu ñu ko déggee dinañ xam donc yooyu mooy ñetti fausse nouvelle donc c'est une diffusion de fausse nouvelle et elle est punie par l'article 255 du code pénal li mu def moom mooy wasaare ay xibaar yoo xam ne wérul moom la def bëggoon naa nag su ma paree ci moom ñëw ci contumace nan la ñuy mën a waxee ne Sénégal koo xam ne xam nga fi mu dëkk xam nga domicile am boo ko bëggee jëli tey tey suba nga jëli ko 19 heures bu la neexee du fanaan këram bu fekkee sénégalais dinañ la ci bàyyi. barricade këram yow yaa koy garde léegi donc c'est kër góor gi mooy zone bi ëpp sécurité ci Sénégal nga ne yow da nga ko condamné par contumace article 345 boobu noonu mooy wax au dernier domicile di contumax mooy contumace mooy koo xam ni c'est un fugitif maanaam dafa daw mais koo xam fi mu nekk nan nga koy condamné par contimence loolu nag day interroger sénégalais yi ñu xam ban justice nañu am beneen bi aussi mooy dama ko fàtte woon mooy mise la justice foofu laa bëggoon a sax terminer ci côté ci disponibilité décision bi parce que daf ni ñaar a am par rapport à l'exécution de la peine bis buñ ko xasee ba notifier décision bi am na moom soit mu ñëw construire wu prisonnier su boobaa la pen sera anéantie wala procureur jàpp ko boobaa la peine sera anéantie waaw loolu mooy lan mooy yow li nga àtte amul njëriñ loolu mooy li nga àtte amul njëriñ soit da nga koy dem jàppi la peine est anéantie jàppi woo ko procureur euh, moom moom mu dem constituer wu prisonnier la peine sera anéantie loolu moo tax nag muy préparer l'opinion à une autre manipulation qu'est-ce qu'il il dit que juge bi kenn du ko teg pression mooy jël temps bind décision de justice parce que moom moom moom boppam loolu du dëgg article 473 aline 2 nee na décision de justice bu ñu ko rendre dans les 15 jours juge bi ak greffier bi dañu ko war a signer mu disponible au greffe kañ lañ rendoon décision bi du 1er juin tey la kañ du 16 juin kon décision bi tey waroon na disponible au greffe loolu la loi bi wax de mais comme yow nag da ngaa soxor da ngaa créer sa dossier boo xam ne président Ousmane Sonko nee na la dossier bi sa dossier la. moo tax bi ñu ko créé gis nga lim la jural moo tax mu ne la dossier bi sa dossier la moo tax jaral na la say consulat fépp ci àdduna bi ñu tëj suñu consulat sa dossier la jaral na la chaque jour nga génn di justifié wu auprès des ambassades tey nga war a dem commission des droits de l'homme bu bu bu bu commission des affaires étrangères bu union européenne def ay conférence de presse yu dul jeex parce que dossier bi sa dossier la yaa ci dugg xamuloo noo ciy génnee moo tax nag muy préparer l'opinion à toog heure bu leen neex pour def lu leen neex loolu nag sénégalais yi ñu ngi leen ciy xaar bu loolu weesoo nag kon ñoom isson sont entre deux feux entre deux feux le feu judiciaire et le feu politique le feu judiciaire mooy boo nee da ngaa arrêté Ousmane Sonko la décision est anéantie en toutes ses dispositions li nga defoon yow ndax saay na mais le feu politique mooy yow demal nga jéem a arrêté Ousmane Sonko bi nga ko jéemee condamné xam nga lu la ci fekk. boo ko arrêté wee xam nga loolu ciy fekkaat bu loolu weesoo nag ñu ñëw ci plainte bi nga xam ne moom la ñu bëgg a def devant la cour pénale internationale ñu gisaat encore une fois un gouvernement boo xam ne wane na ni liggéeyul pour sénégalais yi il roule pour d'autres intérêts ci naka dem leen États-Unis ngeen xam ay citoyens américains ngeen leen la ñu def plainte devant la cour pénale internationale contre Joe Biden ngeen xool ba xam le lendemain États-Unis seen gouvernement dinañ def conférence de presse pour naan dañuy tontu pourquoi répondre parce qu'en réalité defuloo ci lan ngay répondre le seul sentiment le le besoin le, le simple besoin de répondre mooy wane ne ils sont deuxièmement day wane ne aussi c'est une panique parce que nag affaire u CPI opposition bi yàgg nañ ko fee yëkkati mais bu demee ba jur fépp ci àdduna bi ngay daw di justifié wu di def conférence de presse ñàkk tooy xepp pendant trois heures de temps pour leeral te li ngay wax ba léegi mënatu mënul leer mooy panique dafa am ñetteel bi mooy boo demee ba ay nit ñoo xam ne ay sénégalais nañ ñuy collaborer ak Juan Branco te muy seen droit parce que sénégalais am nañ droit saisir les juridictions internationales dès que le Sénégal a ratifié nga yëg ko nga dem te li may wax ni Juan Branco moo ko bind page Facebook comme ñëpp foo leen ko xamee nga dem di menacer ñooñu naan leen xam nañ leen ñu ngi leen di gis dinañ dal seen kaw waaw bu fekkee ñooñu li ñuy def mënu la jural dara loolu la ñuy menacer muy ñett ñu déggaat encore une fois un récit mensonger mensonger encore quoi nee nañu moor yi tollagul niveau boo xam ne mun nañu saisir yi maanaam tey Sénégal il faut que ñun ñu gën ñoo rey ñoom nangu nañ ne léegi ñoom ñu ngi ñuy rey ñoom moor yi ñoom nangu nañ ko léegi désormais c'est un aveu tacite mais nag moor yi tollagul niveau boo xam ne jar nañuy ñuy saisir cour internationale mbokk yi li garaaw na de léegi nag qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'il y encore des centaines et des et des milliers de morts pour qu'encore ñu mën a saisir la cour pénale internationale ce qui est faux yéen ñëpp dem leen ngeen tapé ci net bi le traité de la Cour pénale internationale le statut de Rome bi nga xam ne dañu ko signé le 17 juillet 1998 mu entré en vigueur le 1er juillet du ngeen ci gis ci 128 articles yi fenn fu ñu wax ne pour déclencher une enquête ci crime yi ñu tudd day laaj benn mort ñaari mort 1000 morts 2000 morts c'est faux crise bu amoon Côte d'Ivoire ñëpp xam nañ ne bu dee en terme de nombre de morts bëriwul woon te teewul déclenché nañu ay poursuites beneen bi mooy. ñu ni ñi nga xam ne ñoo bëgg a saisir CPI je répète bien ces mots naanoon ni la qualité nii la capacité damay ñëw ci qualité maanaam amuñu qualité saisir ba pare li ñuy wax mënul nekk crime contre l'humanité d'abord la yi pour mu compétente il faut mu am une compétence territoriale maanaam fan la jëf yi amee pour mu mën a compétente pour mu mën a àtte mbir mi mais yan jëf la mën a àtte muy compétence matérielle après ñu ñëw ci condition d'exercice de la compétence compétence teritorial bi moom werante wuñ ko Sénégal de lors que état la boo xam ne dafa ratifier le statut de Rome mooy dëkk bi ko jëkk ratifié bépp krim bu ñu fi def fii muy crime contre l'humanité ak yeneen crime yi ci tegu mun nañu ko poursuivre devant la CPI loolu moom du débat mu des léegi la compétence matérielle bu ngeen demee article 5 bu statut de Rome daf ni ñeenti crimes yi fu ñu ko defee CPI nag am na capacité pour xool ko muy crime contre muy crime de génocide mooy nga dal ci benn askan parce que dañoo am benn gëm-gëm wala dañoo am benn xeet nañ wala benn race nañu pour exterminer leen crime d'agression wala crime de guerre li am Sénégal nag crime contre la te article 7 bu yi moo koy wax ndax article 7 bu yi dafa tudd 11 actes yoo xam ne soo ko defee nga def ko si ñaari condition nee na la crime contre la lan moo tax ñoom du ñu am rigueur le ministre ki Kaba est un avocat international xam ne les procédures pendant devant la CPI e, lu tax duggul ci qualification day wax nii rek ci kaw pour leurrer na sénégalais yi dem liiri ko onze actes yooyu nag daf cee bokk meurtre rey nit daf cee bokk torture mbugal nit daf cee bokk disparition forcée ñu xëy rek gis ay agent yoo xam ne ay agents de renseignement nañ ak ay gendarme xëy dispari disparaître bokk na ci actes yi onze actes yi daf cee bokk persécution contre un groupe une collectivité pour des motifs d'ordre politique mooy li ñuy def waa Pastef képp ku bokk Pastef boo takkee bracelet sax ñu jàpp la yóbbu la ci kaso bi onze actes yooyu nag dañ la ko dañ la boo ko defee si ñaar quand c'est une attaque généralisée képp képp ku bokk Pastef wala képp kuy manifester rek nga dal ci kawam ñaar muy benn ñaareel bi mooy quand l'attaque et est dirigée contre une population civile ñu ñu ko def ay militaires nañu wala ay du ay civil kon nag la CPI va obligatoirement se saisir de ça mu gaaw wala mu yéex bu leen ci kenn nax képp ku ko nag ku bëgg ji traduire la foofu def la li ñu def Sall Taylor attel la ne la dañ la tëj cinquante ans dugal ci mbir mi képp ku bëgg ñu yóbbu la foofu continuer du juux di forcer parce que ñooñu noonu bi ñuy nekk seen réew visé li ñu fa jugé ci ay nit mat na plus de neuf dossiers dix dossiers ay anciens chefs d'État ak yeneen ak yeneen ñooñu ils se croyaient des demi-dieux et impunis kon nag takkal sa sa galon nga ne yow officier de police judiciaire nga wala yow commandant nga wala yow commissaire nga wala yow ministre nga wala yow président nga nga foog ne yow tu es senegal nekk benn dëkk bu ndaw 196 714 kilomètres carrés ci àdduna bi nga foog ne di nga rëcc mënoo rëcc e li gën a garaaw nag mooy crimes yooyu noonu c'est des crimes imprescriptibles loolu mooy lan mooy loo boo ko defee fii ba cent ans mun nañ la ci topp kenn mënul wax ne mat na vingt ans mën na dix ans kenn du la toppati parce que crime prescription bu dee Sénégal dix ans la pour bañ a guddal terminer ci yan ñooy condition d'exercice yi yi tax ñi ne mun nañ saisir CPI bi si jiitu mooy état boo xam ne dafa manifester un manque de volonté pour ouvrir une enquête parce que ñun Sénégal ñun am nañ suñuy justice ñun juge yu nekk CPI fayu ñu leen de mais juge yi nekk fii ñun ñoo leen fay robe yi ñuy sol ñun ñoo ko jënd tribunaux yi suñu xaalis moo ko tabax xanaa nag ñun bu ñu sañoon ñooñu àtteel ñu suñu mbir mais su fekkee dafa am fukk ak ñeenti sénégalais yu gaañu ci condition yu leer ñëpp gis ko au mois de mars 2021 ñu teg ci ñaari at ak ñetti weer yow nanguwoo manifester benn volonté pour àtte léegi sénégalais yi daal dañuy ni rey amuñ droit saisir juridiction nationale yi bu ñu ko saisiree mbir mi taxaw foofu amuñ droit saisir des juridictions internationales loolu fan la am moo tax CPI ne la bokk na ci condition d'exercice yi mooy bu fekkee état bi nga xam ne ñooy état bi nga xam ne état parti la manifesté wuñ benn volonté wala ouvrir une enquête indépendante beneen bi nag mooy nee na amuñu qualité bi li ma leen wax procureur bu CPI mun na saisir de tout ça parce que état parti bi Sénégal bu saisirul état bi dafa am ku ko yor tey de ëllëg ñan ñoo koy yor su dee ay responsable nañ ils devront élucider ça devant les juridictions nationales ou internationales su boobaa c'est le état du Sénégal beneen bi mooy procureur bi nit ñi mën nañu ko saisir ci lu leen neex su paree moom mu xool fan lay jaar pour ouvrir une enquête loolu ku dem lire article 13 article quinze bu statut de Rome di nga xam ne loolu moo am kon nag lii yëpp day militer en faveur d'une idée claire que nu sommes face à un gouvernement boo xam ne désormais il n'est plus dans la diabolisation et la manifestation et, manipulation mais désormais il est dans la diffusion permanente de fausses nouvelles loolu day interpeller les Sénégalais dans leur responsabilité pour ñu faire face à ce régime pour mu jugee fi pour Sénégal am jàmm maa ngi leen di sant di leen gërëm asalaamaaleykum. merci Ngagne Demba